auzu billahi min seytaan rajiimi bismillahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonantaam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faay mën a nekk ñëw leen di jaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen ñi ci Daaru Salaam Sifaaw Daaru Salaam Sifaaw dana seet bu la seet wax la sarax wala wax la sa càngaay foo ma dem defe ji fa nga dem defe ji ko fa léegi tey nag ñoo ngi ñëw ci sóortu yaasin ndax sóortu yaasin dafa bari ay ngëneel sóortu yaasin dafa bari ay sekkare waaye ñu may alam nasara ak alam tara ci bala ñoo dugg sóortu yaasin képp kuy saxal di jullee ñaari rakkaay fajari ñaari alam yi muy alam nasara rakka bu njëkk ba deuxième rakka ba alam tara kay fa ci kàttan suñu borom tabaaraka wa taala da nga mos da mucc loolu yéen saa sa moo ko digtale moo ko fi bàyyi ñaari alam yi képp saxal di ko jullee da nga mos da nga da nga mucc noon da nga mos kon sootu yaasin lépp moom mooy lépp kon soot sootu yaasin mooy lépp mag ñi nag am na mag ñi yoon ñu ko daan defe dañ ko daan defe ci aw yoon daanañ am yitte toog ci benn jataay jàng ci suurtu yaasin ñeent fukki yoon ak benn képp ko def tamit suñ borom bépp aajo bu mu doon mën na koo faj suurtu yaasin kon suurtu yaasin mën na lu ne yaasin li maa xore la ko yónni salaam tudde lépp loo ko jàng jublu ko ci yaasin loolu suñ borom mën na ko saafara lépp loo jàng ci suurtu jublu ca loolu suñ borom mën na ko saafara moo xam da ngaa am xaajo moo xam da nga nekk ci jafe-jafe di ko jàng bëgg jafe-jafe day dañ am na beneen yoon tamit boo xam maa ngi dañ ko daan def da ngay wut si am ndox nga wut sa xeeri yu ñuul xeeri godoron yi saa boo xëy nga jàng benn sourate Yaasin tufli ca xeer yoo sànni ca ndox ma ba man ñeent fukki fan ak benn kooku tamit lépp lu mu fekk ci mën na koo saafara moo xam yàqu-yàqu la en même temps dana ubbee ba pare nag da nga jàng xatmum alxuraan bi nga tufli ko ca waaw noonu sourate Yaasin moom noonu loolu sekk na ci waaye bi tamit ak yoon na ci koo xamante ne nii lépp dafa amay ay jafe-jafe kon da ngay bind yaasin baat bi ngay bind yaa ngi koy bind 66 ginnaaw bisimilah rahmaani rahiim da ngay bind yaasin 66 juróom-benn fukki ak juróom-benn bind baat bi boo ko bindee loolu nag yaasin ji 66 da ngay àggal saar mu jeex wal quraan hakiim innaka laminal mursaliin ba saar sóoru yaasin jeex tàkk nag waaye baat bi moom yaa ngi koy bind 66 juróom-benn fukk ak juróom-benn mooy turu yàlla allahu nga àggale ko ba mu jeex tàkk saar ba pare da ngay dem nga wut ndoxum teen wala ndoxum seyaan wala ndox moo xam day daw mën na ko moom ngay wut nga def ko saafara sax boo ko defee saafara sax nag wutaat xal yuy dund yaa ngi ciy wut juróom-ñeenti xal yuy dund boo amee këriñ lu yees nag moo ci gën xal yees yu dund moom ngay wut juróom-ñeenti xal ba pare dangay ngay wutaat juróom-ñeenti puso yu bees tàq def ko ca yëngal ko ba mu jaxasoo nga bàyyi ko ba mu dal nga wut ab inde ba wuti ab inde nag da nga koy teg ci kaw gën nga jël saafara nga sotti ko ci kaw inde ba mu wàcc ci gën ga nga jaxase ko ba mu jaxasoo nga bàyyiwaat ba mu dal nga jëlaat loolu nga delluwaat ko ci sew ba saafara da koy delluwaat ba kooku nga xam ne dafa am ay yàqu-yàqu ak jafe-jafe nga jox ko ko mu sangoo ko juróom-ñaari fan sangar bi nag ajjuma du ci bokk. na leer loolu ajjuma rek lañ ci du sangu sangal boobu juróom-ñaari fan nga koy sango waaye ajjuma du ci bokk boo àggalee càngal boobu muy juróom-ñaari fan yi mat na wut guro yu weex juróom-ñeent wutaat puso yu bees juróom-ñeent wutaat miskit juróom-ñeent ak guro yu xong juróom-ñeent ak euh, sondel paquet sondel yi wut juróom-ñeent paquet sondel bu ko defee mu ñaan ci soxlaa mu saraxe ko nag ku mu ko sarax tamit baax na moo xam góor la wala jigéen la wala ku mu ko ma sarax rek baax na sarax bi na génn ci moom kon loolu leer na da ngay bind yaasin baat bi juróom benn fukk ak juróom benn 66 nga àggale saaro ba mu jeex nag wal xuraanu xakim nga cee teg innaka la mel ne monsieur ba saro jeex nga wur nga ndoxum teen wala ndoxum seyaan wala ndox muy daw rek nga jàmme ko saafara sax nga wut xale yu dund nag juróom-ñeenti xale yu dund ngay wut nga def ko ca këriñ lu yees na nga jëgën nga wutaat juróom-ñeenti pus la nga def ko ci saafara sa yëngal ko ba mu jaxasoo nga bàyyi ko ba mu dal nga wut ab inde wut gënn nga jël inde bi teg ko ca kaw gënn ga sotti ca mu wàcc bu wàccee nga jël saafara sa nga delluwaat ko ci sew ba mu nekkoon nag boo ko dee ci sew ba nag nga jox ko ko nga xam ne dafa am ay jafe-jafe moo xam dañ ko liggéey moo xam rab moo ko yàqal moo xam seytaane ko yàqal ci lu mu mën doon te liggéeyam yàqu na rek bu ko dee mu sangu ci juróom-ñaari fan ajjuma nag moo ci dul bokk bisu ajjuma rek moo bokk boo ko sangoo juróom-ñaari fan yi ba pare day saraxe gurab bu weex juróom-ñeent lay wut wutaat pusa wutaat mbiskit paquet mbiskit lay wut juróom-ñeent paquet mbiskit pusa du ci bokk day wut gura bu weex juróom-ñeent wut mbiskit juróom-ñeent paquet wutaat juróom-ñeenti guro yu xonq wutaat paquet sondel juróom-ñeenti paquet sondel mu boole lépp mu doon benn ci mbuus mu dem sarxe ko lii de képp ko def ci carton suñu borom tabaaraka wa taala jafe-jafe yàqu ci wàllu liggéey moo xam ci lu mën di doon rek rab ci borom tabaaraka wa taala loolu da koy bàyyi mu nekkaat en l'aise nekkaat ci jàmmam nekkaat di liggéey normal kon li benn la ci secret surtout Yaasin yi surtout yaasin dafa bari njariñ yéen saa dem ne li maa rek loo jàng surtout yaasin rek am nga ca la ci bëgg ci lu mel noonu nga koy wute kon surtout yaasin nga xëy ñàkk koo jàng sax mag ñi bu njëkk surtout yaasin lañ daan dëkkee bala ñoo defaat dara dañ jàng surtout yaasin bala ñoo lekk am na mag ñoo xam seeni kër dañ daan wut ab bool ñu wër bool bi jàng surtout yaasin dongo yi ba mu jeex ñu tëfli ko ca surtout ndox ma kenn ku ne naan ca loolu xëy kon sóoratu yaasin lu yéema ci wàllu woowu lu mën a ubbi doomu aadama la lu mën a euh, dindi ay jafe-jafe la ak nit kon secret sóoratu yaasin googu kon ku ko mën a xëy di jàng benn yoon baax na doon dëkk bala nga xëy la di ko ndëkkee lu baax lañ nga ñaan soxla moom li ci yoon wax rek mooy li maa xure yaasin li maa xure loo jàng jublu ko ci rek mën na la mën ngaa am ca loola kon ñëw leen di siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen rawatina yéen abonné ci Daaru Salaam si waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa